xiifal geraw de la faim allah yoor yoor yéen a kaay ñu ko xamal li tax nag mu tàmbaliwaat geraw de la faim nee na fay jàppale ay soxna jigéen ñu bëri ñoo xam ne Pastef lañ bokk fañ leen a jàpp tëj kaso ci ay weer yu yàgg ba léegi ah, yaw seetal fa xam jigéen ñoo xam ne fañ leen a tëj ca kasoog Ziguinchor ga ak ca kasoog Liberté 6 ga Ndakaaru Ousmane Sonko nag fa wax ci libération ne jigéen ñooñu fañ leen a jaay doole fañ leen a tooñ teg leen loxo ci anam gu dëppewut fekke ne ñoom soxna yooyu jigéen yooyu nga xam ne ay jàmbaar lañ ñoo dem ba ñoom ñuy amal grève de la kon man Ousmane Sonko mi tax ñu jàpp leen faa leen di jàppale fekki leen ci seen grève de la faim bi vox populi na ko waaye ca geneen wàll ga moom Ousmane Sonko xàq ak yellefam bi nga xamante ne fañ koy salfaañe loolu it fa koo ñaawlu ba tax mu amal grève de la bi ba pare woo gaay nañu amal résistance le regard yéen a kaay dëggal ko na Sonko tàmbali waat na de grève de ndax fa bëgg ñu bàyyi jigéen patriote yi nga xam ne ñu ngi ci kaso gi te ña ngay amal seen grève mel ni lu fin nag jeex tàkk mooy Sonko ba amoon si gen soor nga état bi fa réquisitionné woon attekat ba léegi nag mujj nañoo jot xibaar na état bu Sénégal na ca ginnaaw fa bàyyi mu sedd bés bi yéen a kaay moo ñu ko xamal enquête yéen a kaay na lan moo tax état bu Sénégal deltu ginnaaw ci kalaame gi mu doon kalaame attekat ba ñuy wax saaba si fay ca Ziguinchor ndax la mu atte woon Ousmane Sonko yoor yoor yéen a kaay na ko faa lay wax li tax état bi fa daw ndax bu ñu demaatoon cour suprême gàcce gu rëy ñaareelu toroxal moo tax ñu daw léegi que a kaay na xée fa mel na Mbaye Niaba ak Ousmane Sonko weeru octobre bii ci lañ bëgg cassation cour suprême daal di ciy atte te loolu nag suñ fa jaaree dëggal atte bi doxante diggante moom Mame Mbaye Niang su fini fay tere Ousmane Sonko bokk ci ay wote ndax fa ñu am foofu atte boo xam ne jeex na tàkk <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne maître Sidiki Kaba jëwriñ ju bees ñi dénk wàllu biir réew mi ak ki ko doonoon Antoine Diome ñoom ñaar jébbalante nañ lenga ya la dépêche 2024 yi a yaaw seetal fa wax ne politiciens yi na seen xel dal élection yi jaar yoon moom laa fas yéene organisé yoo xam ne fay xam démocratie xam ci anam gu mucc ayib matuwaay yëpp fañ koy jël mbañ gàcce yi lépp lu fi bàyyeekoo ak bëgg-bëgg sénégalais yi ki ñu woteel loolu moom fañ koy respecté ñañu manqué respect nag mooy maître Malick Sall ak ñam xàndal ca benn bokk yaakaar fañ doon xamal ñaareelu lancement parrainage ba waaye daal ay nervi fañ leen faa fekk rajaxe leen fitnaal leen source ay yéen kaay Malick Sall ak ñam xàndal te loolu yëpp biir benn bokk yaakaar la ña nga de l'évidence yéen na ko voilà benn bokk yaakaar googu tamit ca diwaanu Kaolack ndangaan é fi mu toon de presque tas na benn bokk yaakaar intaha jeex na fa presque ah gars yi tekki seen ndomba tànk di bàyyi bennoo l'évidence yéen ne mouvement Mohamed Ndiaye Rahma ba muy mouvement Rahma ñoom nee nañ arrêté dakkal nen lépp lu ñu doon def ca biir benn bokk yaakaar Yoff te la muy liggéey benn bokk yaakaar Kaolack kenn liggéeyut ko fa la muy taxaw askan wa tamit waxi nopp kenn defut ko fa Abdoulaye Ndiogu fa ñaawlu ñàkk a jox gëdd Mouhamed Ndiaye Rahma Fat Niang buur présidente des femmes moom it fa koo ñaawlu ne ñoom lii ñu def nag baaxut ci Amadou Ba de fay tax mu ñàkk élection yi Kaolack xemuñ fa fa ñoo xoo waa ji Rahma na ko yow it kaay nga bokk ci lii ñu nekk te mooy bàyyi bennoo agum révélation yéen a kaay na waaye si jamono jooju Baba Ndiaye ñu ñëw nekk ci ginnaaw Amadou Ba Pape Demba Bitèye fekke woon finance yéen a kaay na ko voilà Pape Demba bi tey moom ngay wax fa xamaloon wisit chantier centrale ba ñuy tabax ca Cap des Biches waaye liggéey ba na yëf yaa ngay dox ci dox dem ba Casamance orientale ngir wàllu parrainage bi ak élection yi du kenn ku may Mimi Touré fa ngay xool Mimi Touré ma nga xamal tukki mu ne mekku Vélingara ak Diaw beeg Kolda département dina Yoro Foulah ak yeneen ba tey tey mooy yéen a kaay fa dalal Cheikh Bara Dolly Mbacké nee na mooy candidat bi gën a set te gën ci Sénégal li baaxut nag ci Sénégal mooy dund gu cher ñàkk xëyu ndaw ñi koom-koom gu nërmeelu waaye loolu yëpp nag Doudou Ka joxe na ca xalaatam ca info yéen kaay keneen ko joxe xalaatam ci wàllu wi ni mel mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu kopparu réew mi Moustapha Ba waxtaan wu yaatu ak l'observateur wax na ca pétrole bu cher bi ci àdduna bi ci jamono jooju Sénégal yi nga waaj a jaay moom pétrole am bi naka lañ ci war a doxale wàllu dund gu cher geek ñàkk xëyu ndaw meek wax na fa ay xibaar yu am solo naka noonu tamit njiital Sénélec moom it joxe na fa xibaar baax turbine yéen kaay fa wax ne Moustapha Ba jëwriñ ji ñu dénk kopparu ak beneen réew soo ko déggee muy wax fa ngay jàpp ne Sénégal daal benn jafe-jafe lépp ngi dox normal koom-koom beeg waxante dëgg askan waa ngi bëgg a dee taxi yi fa métti ci way jëfandikoo yi ñu ne déetawaay góorgóorlu yi njaboot yu bëri mënuñoo am buñ xañee duñu reer 24 heures yéen a kaay na ko faala ci yokkal léegi tey dootuñ dékki ndax mburu mi fañ ko bëgg yokk waaye état bi jëwriñ ji fa bañ ba tëdd ca naaju na kenn du ko fi yokkee ba tax yéen a kaay bi na ñàkkante ko nar naa am de seen biir <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njàng meeg njàngale mi école Sénégal yi fa ñoo manque ñàkk ay jàngalekat fa ngay xool diwaanu Kolda juróom-ñaar téeméer ñaar fukk ak juróom jàngalekat ñoo fa manqué diwaanu Tamba moom juróom benn téeméer ak juróom fukki jàngalekat ñoo fa manqué diwaanu Matam juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñoo fa manqué le quotidien yéen a kaay ne boo moytuwul nag école yu bëri fañ la nar a tëj ak classe ya a amuñ ku leen jàngal wala boog fa ñuy andiwaat li ñuy wax multigrade élèves yi bu ñuy xëyee ñuy gont maanaam benn classe bu ñu soppi ñaari classe élèves la ñuy jàng du bëri li bëri jamono ji nag moom fa wax ne fitna jaam Israël ak ko militaire maanaam moom daa ko rucc ma ko waxee ci réew mi yéen a kaay la Soleil yéen na ko njiit mi kay yemut fa wax na fukki dëggam ak juróom-ñaar ak lim yéene bëgg ko ci fitna jooju am ca Palestine libération moom fa ñoo xamal mbir mu métti ba doy waar yaaw seetal fa xam ñetti elew yoo xam ne lii sa dañuy jàngee fa ñëw génn seen buntu école bi rek xab tracteur boo xam ne fa saaraar rek fekk leen ñu taxaw fa leen a rañaan tampon leen nappaaja ñu faatu ñàkk seen bakkan allah ca saa si nag fa lañ faatu yëf yaa nga amee ca taset hmm, waa ma ne xam ngeen ne lor ngeen seen i njaboot de xab tracteur bu dof maanaam boromam daal fa doon tëñëx tëñëx rek di dawale nu ko neex ak a saaraar ñetti elew yii waxuma sax liñ mën a jëriñ seen i waajur waxuma liñ mën a jëriñ